l'idée c'est d'organiser ça tous les ans pour vraiment suñu partenaires américains yi canadiens yi français yi chinois yi ñuy jógee Angleterre ñu ñëw vraiment pour xam école yi nekk Sénégal pour xam suñu élèves yi ñan lañu pour xam professeurs yi fi nekk ñan lañu ak en général université yi liggéey bi ñuy def donc c'est vraiment ñoom aussi dañu ñëw gën a xamante ak euh, environnement sénégalais bi gën xamante ak euh, ak euh, ak environnement Euh, ouest africain francophone ah. maanaam ñi di làkk français pour wax leen ni que même su fekkee français la ñu la ñu gën a tàmm français la ñuy làkk mais ñoom seen seen langue anglais la mais ubbi nañ seen ay buntu pour euh, pour pour suñu étudiants yi jox leen opportunité yi yi yeneen étudiants yëpp am fi dañ lay dañuy renforcer sa sa capacité mais li ñuy laaj mooy nga am sa bac il faut nga am sa bac ak aussi nga ñëw pour liggéey bu baax